maanaam mooy seeni résultat te loolee ñoom jàpp nañu ne wuruñu ko mën a nangoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li ambade sall mooy PDS ak aliyéema ni ki suba si àjjuma ji danañu wàcc si mbedd mi ngir nag amal li nga xam ne mooy ay manifestation waaye nag ci mbedd mi duñu sa wéet ndax ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ak waa defar sa gox yeewi askan wi waa réewum ngor ñii ñëpp danañu leen jàppale ci a kaay gi nee na ministre Antoine Diome ak Mahmoud ci pale bi ñii la gi nga xam a ama ci élection locale kaay nee na ñi nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal daat nañuy wane nag luy firndeel ne Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg a sàcc li nga xam ne maanaam mooy seen élection maanaam fraude ndax commission de recensement des votes maanaam li nga xam ne moom la publier ak nekk ci PV yi maanaam comme yàlla ak yàlla yéen a kaay gi di Direct News xëy di ñu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñuy waajal dina tax nag Antoine Diome mi ñu dénk wàllu woowu ni ko suba si ajuma ji woon a parti politique lépp loo xam ne jëm na ci ministre Macky Sall lan lay xaar yéene kaay gi nee na élection locale yàq lépp ndax dafa am ñu perte ñoo xam ne ñooñu Macky Sall bëggoon na leen a ñooñee nag ginnaaw bi ñu perte la lépp yàqu jamono ji Macky dafa commencé waat à zéro yéene kaay gi di bés bi nee na tey jii sa alxames ci Macky Sall daan nay woote li nga xam ne mooy ab conseil des ministres ca palais ba ana lan la Macky Sall waajal tey jii yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Pape Demba ñu gañe boobee nag Pape Demba Biteye daan na koy rocci retiré na ko ba pare nag daal di nangu li nga xam ne mooy ab defetam daal di jaajëfal félicité nag Ahmed Youssouf Bengelloune mi nga xam ne moo gagné conseil départemental bu Kaolack coalition ànd nawle yéen kaay gi di 24 heures nee na Pape Demba Biteye delloo si na xelam Macky Sall ci boppam moo wax ak Pape Demba Biteye yéen kaay gi di li quotidien duñu xibaar naan ñu building administratif bi nga xam maanaam sept milliards yéen a gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu brigade des douanes bu Koungheul daat nay teg loxo lu bare bare bare ci ay faux médicaments yoo xam ne bi ñu ko xaymaa toll na ci deux cent cinquante six millions ca diwaanu Diourbel la jàppee faux médicaments yooyee yéen a kaay gi nee na rek li nga xam ne tamit moom lañ jàpp ci drogue bëri na genn xeetu bëri goo xam ne fu ko waaye natta passé na ko toll na si junne ak juróom benn téeméer ak juróom fukk yoo xam ne jàpp nañu ko yéen a kaay gi di libération nee na du loolu rek ndax nag ca diwaanu ci benn gaala ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñeenti kilo drogue yoo xam ne foofee tamit teg nañu ko loxo yéene kaay gi nee na opération boo xam ne ñi nga xam ne ba maara détail yi ñoo ngi ci mbedd mi jàngalekat yi ñoom tima ñoo ngi ci ab a ñooy liggéeyee ci hôpital hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba jamono ji dañoo mer ba maara sax ñoom médecin yi janoon nañu ak taskatu xabaar yi nee nañu nag lii ci boppam ñoo ngi ci interpellé nag Macky Sall wax nañu ak gouverneur ndax nag ñoo nekk ci hôpital boo xam ne ñi fiy xëy di ñëw nag ceew askan kenn xamul nu mu toll médecin yi dem ba amul ñu sax ndox mu ñu raxasoo ñi nga xam ne sax ñooy soxla toilette malade yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal maanaam tumuranke gi nga xam ne moom la ñu nekkee doy na waar yéene kaay gi di réew mi